compagnie générale immobilière du Sayer boobu. Euh, lan mooy ay objectif lan lan la war a def pour yombal dëkkuwaay sénégalais yi nga yaakaar. parce que propriété gars yi dañ dem ba génnee ko seen xel. te yooyu war na facilité sénégalais yi ñu jot ci. waaw loolu hmm. ay question yu am solo ngay poser actuellement. Hmm. parce que euh, bu njëkk bi sooy xool sunu pàpp yi. Hmm. niñ doon def ba am kër. c'était la location vente. ay mhm. HLM dañ doon tabax fii. Mhm. jox leen ñuy fay ndànk-ndànk. ay mhm. trente mille ba am kër. léegi loolu dafa commencé rare Sénégal. waaw ah, la location vente. cest à soo amul xaalis xobet xobet. doo mën a am kër donc si on veut que les primo-accédants wala xale yi mën a am kër donc je pense que programme boobu il faut que ñu yeesalaat ko tout ce qui location vente permettre aux revenus. intermédiaire voire modeste de pouvoir un jour être propriétaire te loolu yëpp CDC euh, mi ngi ciy dox CIGIS mi ngi ciy dox pour vraiment ñu commencer yeesalaat tout ce qui est location vente mhm. parce que euh, sooy xool Dakar am fi kër léegi lu jafe la et puis y même plus de terrain disponible donc tout l'enjeu est d'éviter l'étalement urbain mhm. xam nga et puis aller dans la réhabilitation mais mais si si si si si seen euh, euh, euh, viabilisation parce que dañu gis gars yi bu ñuy viabiliser dañuy ñëw xëcc courant xëcc ndox mais après mu amaat quelques dix ans ñu am problème ndox problème assainissement yooyu est-ce que jël ngeen ko en compte si seen viabilisation parce que da ngeen bëgg indi lu bees. Mm-hmm. pour faciliter Sénégalais nit bu ñëwee nga def ko location vente parce que gis nañ ko Kër Massar benn entreprise boo xam ne état moo ko moom bu jaay foofu pour ne pas citer le de no mm-hmm. mais gis nañ ren même pas dix ans seen kër yi ndox bi nangu na ko. effectivement donc xam nga léegi normes yi pour construire. je pense que il faut nga ñu gën a yaatal par exemple dimensionnement des canalisation et cetera. Mm-hmm. parce que très souvent avant bi ñu doon tabax du ñu jël en compte le développement rapide de la population. Mm-hmm. parce que la population sénégalaise se dédouble presque chaque vingt cinq ans. nga am double de la population. Mm-hmm. donc sooy tabax il faut nga anticiper. loolu que voilà loolu que population bi dina yokk. nga dimensionner les canalisation wut ay exutoire nga xam ne ndox bi foofu lay dem pour éviter les inondations aussi mhm. parce que tey euh, écosystème bi d'une manière générale xam nga dafa jaxasoo mhm. c'est-à-dire climat yi kenn xamatul noor la nawet la wala yooyu mhm. taw yi day bari donc sooy construire tey yooyu yëpp da nga koy intégrer xam nga parce suñ ko intégré wul après c'est l'état qui va venir en secours. donc normes yi il faut moi c'est ce que je propose ñu gën ko dëgëral. nga xam ne pour nga tabax il faut des critères yoo war a remplir am ay zones non édificantes yoo xam ne kenn mënu fa tabax. parce que ce sont des zones par essence inondables.